ko euh, Karim Wade ak Khalifa Sall ñetti cas yooyu ñaar yi ñaar yi ñu ngi leen di négocier pour ñu mën a bokk ci election yi bëgg koo jaar ci xaw ma dañ leen di amnistie xaw ma naka lañ ko mën defee waaye en tout cas ñu ngi koy ñu ngi koy lijjanti. léegi nag mu des Ousmane ko dama ni kii bu dee sax moom dafa am même bu amoon jafe-jafe xëy na ay particulier ko amoon ay nit. mais ñii nag dañu jël moomelu askan wi. Mm-hmm. yoona ko àttee ñu tëj leen bàyyi leen après et tout. Mm-hmm. nan lañ mën a négocier bàyyi ñële. pour ñu bokk ba pare kii ñu bëgg ko barricade këram moom du bokk du génn du wax du dem du nangam am sax ñu naan na dem tëddi euh, dañ ko war a dem dafa war a dem tëddi xaw ma lan ak lan ak mais voilà mais kuñ kuñ ku ñu àtte dañ lay tëral mais du tëral sa bopp <laughs> voilà ñett ñooñu seen cas élection inclusive yi ñuy wax mais xam nga man mbir mi mbir lenn moo ma ci jaaxal bon pas jaaxal sax mhm. moo ma ci moo ma ci naqari euh, xam ma yoon dañ ne saa yu ñuy voté loi. Mhm. loi bi dafa war a doon pour tous les sénégalais c'est-à-dire bu nekk gis ci sa bopp. gis ci mooy liñ naa naan wax la loi elle ne doit elle doit être et générale. mais man suma ma toogee gis ñi ne dañu waxtaan jàpp ni que dafa am ñaari nit. Mhm. yoo xam ne dañu bëgg nekk candidat. à la présidence de la république. Mhm. te pour ñu bokk. faw ñu modifier lu wax man c'est là mal mm. waaw sur mesure mm-hmm. donc <laughs> quelque part tey jii effectivement kon bañ leen di tere ñi nekk candidat mm-hmm. kon nekk maanaam ñii leen ko tere nekk woon ci yoon ñii leen tere ñi nekkoon candidat 2019 mm-hmm. man dama jàpp kon ñoom nekkuñu woon ci yoon euh, léegi ñu ñëw ba monsieur Sagna li mu wax am solo trop ñu ne y a les crimes et délits contre les personnes mm-hmm. y a les crimes et délits contre l'État mm-hmm. ñun ñëpp ñu bokk État. cent trente-huit milliards. Vraiment. Ouais. ça peut ça peut aider à. beaucoup d'hôpitaux à réaliser <laughs> beaucoup de choses. beaucoup de choses vraiment. ah surtout jamono yi. Euh, surtout jamono yi. Mhm. alors euh. bu ñu mënee rek laa la wax. je dis bu ñu mënee. Mhm. Euh, aller jusqu'à ce niveau. je suis pas du tout nag d'accord je le dis hein. parce que si forme bi laa wax. c'est pas parce que dama àndul ci Khalifa ak Karim nekk candidat non non non. Mhm. pour man waruñu la noon xañ sax ñun bañ a nekk candidat depuis 2019. effectivement bu fekkee defuñ daga waaw mais bu bu dee nag dem nañ ba xañ leen ko parce que jàpp nañ ni que dañ def dara. Mhm. te yoon bi nga xam ne mooy justice Sénégal. Mhm. moom nañ ne elle est dite au nom du peuple sénégalais. Ah. mooy donc lu ñu téye rek. Hmm. ba xas ko wax ñun ñëpp lañuy jàpp ne loolu la. Ah ok ñu ne léegi kon ñooñu daañu xool nu ñuy arranger arranger arranger ba ñu bokk. Hmm. ok mais là où le là où se situe le problème mooy muy man muy ñun ñi fi nekk ñëpp hmm. honnêtement koo ci ne woon entre euh, Ousmane Sonko mi nga xam ne moom particulier la joteel. ak ñii nga xam ne dañu laal ci gafa réew askan mm-hmm. tey jii boo doon baal koy baal bon Ousmane Sonko mënuma ko baal yëfu privé yëfu moom mënuma leen a waaw non non mu moom man moom sama position leer la. je dis pas baal waxuma sax baal. waaw eh. ma ma ma ji j'ai mal formulé. bokk su ma doon bàyyi ñu bokk. Ah. su fekkee Ousmane Sonko. nañ ko condamné ñoom ñetti ñëpp duñ bokk wër na Serigne Touba man loolu mooy sama position c'est que moom man loolu mooy non non c'est pas non non c'est ñun ñàkkatuñu chance xam nga tax ñàkkat ñoom amaguñu candidat non ñun non non xoolal ñun ñàkkatuñu chance mm-hmm. xam nga tax ñàkkatuñu chance mm-hmm. gis nga ki yéeg ci kaw étage bi ki ci suuf bugg a yéeg mm-hmm. te yéegago a goo munoo ne maa raw ki ci kaw kii mu ngi dem kii amul gis nga vote politique la essayer d'orienter ça ailleurs kii il n'est plus un adversaire parce que bokkatul ci langue gi. donc il n'a qu'à partir et laisser l'a déjà déclaré. Mmh. donc kii moom ce n'est mmh. plus un adversaire mmh. moo tax acharnement bi sax. su buggee continuer. dootul nekk affaire parti politique day nekk affaire nit ak nit. mais kii moom nee na man bokkatuma léegi nag li ma sànne laaj mooy. suñ demoon tey bene xalifa ak euh, Karim Wade dañuy bokk ñu ne ma Moussa yow. wala ci Sonko non bàyyi ma yeggali. xam nga da bañ ma. coupé la léegi est-ce que Pape Sané noonu loolu la laaj sax moom. non loolu la ma laaj daf ma ne. Ah. ndax Sonko ak Khalifa Sall. Ah. tey suñ leen baaloon. Hmm. yow naka ngay def dëggal xalifa ak Karim yow nan ngay def sonk hmm. yow malgré que yow d'accord sax mais su ma demee bi aw ma ci pexe te décision bi des ci man musaa Sagna laa wax man laa wax. Hmm. soit ils sont pas candidats tous soit ils sont tous candidats man je milite pour ça quand quoi qu'on puisse dire réew mi su suñ leen ci dugalee nag pour man. élection caaxaan lañ jëm. Hmm. l' élection des voleurs. Hmm. l' des criminels. l' élection ci élection boobu lañ jëm en réalité. Hmm. mais lii yoon. te droit wax ko. te ñu condamné leen. waxuñu changer ay loi pour ñoo xam ne gis nga Karim Wade. peut-être nee na il est jeune. nañu te dëgg Karim Wade bi muy luyee fii euh, bateau boobu Sané fii la la fekk. cinq mille cinq milliards. ses voyages en jet privé ça nous a coûté douze milliards. et ainsi de suite ba ñu ñëpp ñu xam ne kii mu ngi yàq suñu alal. Mm. tey même personne boobu lañu ne non nañ négocier jéem ko xool nu ñuy def ba mu nekk ba mu jiite suñu réew ñun. Kali mm. xalifa sàll mm. gëm naa ne liñ ko jiiñ moom la xam nga tax ma gëm ko. parce que dañoo dem tribunal <coughs> mu ne ñëpp a ko doon def. Mm-hmm. ñëpp a ko doon def mooy def naa. kon kooku alal réew mi la laal. Maguette laaj ko moom ñan ñooy négocier pour loolu. ñan ñoo dialogué ak ñan la doon. waaw léegi seen seen yéenay dialogué. mais mais mais ah, question la téye ko la. man ko léegi yow jàppal loolu Pape ah. pour pour pour gàttal quoi. Mm-hmm. jeu di de moom wax na ko sax. Mm-hmm. c'est-à-dire ça va être une élection bi nga xam ne. Mm-hmm. c'est la première fois li ni mel am Sénégal. Mm-hmm. mais c'est c'est c'est un recul démocratique. effectivement c'est un recul bu dee lii fi xew 2019 nit ñi dem nañ ba jàpp ne que lii c'est une sélection ba nga xam ne moom nañ fi tegoon pour euh, président mun a jàll au premier tour. lii nar a ñëw nag 2023 mi je crois que nag mu war a moo nar a gën a ñaaw. ci démocratie sénégalaise. xam nga ndax la dañ ne président bokkatul. mais tey la président gën a bokk. ah oui hmm. ah oui <laughs> président hmm. la gën a bokk. Hmm. maa ngi dégg sànq. <laughs> waxagul sax mais xam naa. non non maa ngi dégg sànq. ñii naan dañuy def seen congrès. waaw gis nga. moom luy yoonam ci congrès Pastef. vraiment. ba mu naan loolu dañ koy provoquer moom. mais kon moom mu ngi bokk ba léegi. mu ngi bokk ba léegi moom mu ngi bokk ba léegi. et et c'est et ah, c'est analyse la rek waaw non non. <laughs> xam nga xam nga xam nga nag li ci gën a grave. Mm-hmm. Euh, Pape Maguette. Mm-hmm. mooy que président il va il va il va il va il va continuer de fair de la politique. Mm-hmm. jéem a orienter lépp. sur sa personne. de l'autre côté mu bàyyi candidat am ay candidat am wu. mais c'est xam nga lu muy fàtte président. mooy que nii mu defoon 2012. ba njuuj ñoom Niass ñoom Tanor. Mm-hmm. ñoom Ibrahima Faye mm-hmm. ñoom Idrissa bàyyi leen fii ñii sànnante xeer. moom mu dem mm-hmm. campagne yi ba gañe <laughs> tey jii ñëpp xam nañ ne que. loolooy yoon wi. loolooy yoon bi. donc mënatul ndax nit ñi c'est-à-dire que bu toogee tey bëgg a jël débat bi tour tourner ko autour de sa personne ba pare na moom bokkatul. Ah. je dis non moo tax ma ne moom il est au centre justement de cette élection la te tey li mu mënoon def rek pour arranger tout le monde mhm. parce que le Sénégal ci dernier mandat président Macky Sall les Sénégalais dañu sonn mhm. lii fi xew de Sonko la <laughs> bon admettons les Sénégalais dañu sonn mhm. c'est-à-dire que lii xew ci année ci dernier mandat président Macky Sall non c'est c'est c'est waaw en matière de violence mm-hmm. en matière de d'atteinte des libertés mm-hmm. en matière en matière de restriction mm-hmm. xam nga souvent jeune de même pas parlé de Pastef des prisonniers oui. de Pastef et consorts mais je di dama ne erreur boobu nag nga xam ne moom la président def mu defoon ko ci PDS bi muy soog a yéeg ci nguur gi en 2012 erreur boobu moo ko nar a sonal ak Pastef xam nga ndax lan 2012 président bi muy xeex pa bi muy xeex Pastef bi muy xeex euh, PDS. Mm-hmm. moom day da da doon soog a egsi ci nguur gi. Mm-hmm. am la ñuy wax état de grâce. Mm-hmm. Sénégalais yëpp ànd ak moom. sotale ko mu dóor lay Ablaye Wade 2000 bi muy egsi Sénégalais yi ànd ak moom. dañ ko jàppale sotale ko mu dóor PS. tas PS. mais président fi mu fi muy xeexe fi muy xeex gi Pastef moo bon. parce que moom dafa dem ba ci fin wu nguuram. moment bi nga xam ne sénégalais yi ci bëri bëri bëri génn nañu ci moom ñi nga xam ne voté lañ ko woon ñu ci bëri jàpp nañ ni que li mu leen digoon 2012 dafa ko génn nañ ci moom ci moment boobu nag la ne day xeexee Pastef moo tax ma ne ci lii lu muy stratége stratégie en politique bii dafa juum. parce que bii ça va beaucoup lui coûter li muy coûter Pastef parce que xam nga ndax lan tey ñi nga ne vous avez vous êtes à 700 et poussière. Hmm. pratiquement tout l'état-major de Pastef est en prison. oui tout l'état-major de Pastef. par des fautes graves aussi hein. je sais pas ah. <laughs> si soo jëlee exemple Birame Souleye soo jëlee exemple Jogo Diomaye ku ci nekk. li nga xam il a il a il justice alors que moom ci corps domaine la bokk te ñëpp li mu wax. waaw. mais il y a un député un ancien président du groupe parlementaire fii mmh. Sénégal. qui a dit pire ci Yaya Jammeh. mais ça justifie pas la faute. déedéet non dama ne non non cest xam nga moo tax ma ne. sélectivité bi moo baaxul. <laughs> ça justifie pas la faute. non sélectivité parce que mooy li Khalifa loolu du loolu. du man kese. déedéet ma ne sélectivité moo baaxul. Mhm. c'est-à-dire gis nga bu ñuy kon nam ne am na li nga xam ne tey jii man bu ma ko defee Pape Matar dama Pape Maguette dama non. yow doo ko def. xaw ma ndax comprendre nga. Mhm, comprendre naa su ma ko defee mu ne ma non yow doo ko def. Mhm. fii ci plateau bi. mais su bàyyee man ma def ko rek. après yow su la sanctionné day indi problème. effectivement moo tax ma ne Birame Souleye moi j'ai condamné ce qu'il a dit. Mhm. parce que nit ki mënoo nekk à ce niveau de responsabilité nga wàcc ah nga wàcc foofu. Mhm. mooy benn. Mhm. ñaar nga xam ne que yow seen parti dañ leen di tam dëmm ñu ngi leen di rëbb. nga mën a dem di wax yenn wax yi. manque d'expérience. moo tax ma ne ba léegi mun naa mun euh, condamné naa ko condamné naa ko. mais une chose est sûre mooy que lii Pastef daj. ci at mii Ousmane Sonko daj ko très sincèrement pour diir la vérité képp kuy sénégalais lii ñu teg Pastef teg ko Ousmane Sonko beneen parti bu ñu ko tegoon kenn dootul génnati taxaw ci mbedd di waxtaan te man xam nga ndax lan ma ne c'est dangereux pour le président mhm. tey dama jaar parcelle bi ma gisee booy benn dëj laa demoon jaale ji mhm. mais ñoom yàkkamte nañu woon génn. parce que nee nañu dañuy dem. organiser seen congrès. tout à fait alors tu te dis que ñii. malgré que ñi ngi téye seeni leader. mais ñoom xalaatuñu sax. dellu ginnaaw loolu ñoom ñi ngi dem pare seen ko cest à loolu moo tax kii li muy wax état d'esprit boobu. état d'esprit je dis que c'est là où c'est dangereux et ça il faut que président jël ko en compte. il faut que vous les responsables de l'APR ngeen jël ko en compte. Mm-hmm. parce que finalement da ngeen indi.